jafe-jafe yi nga xam ne rek moom la ñuy jànkonteel ci ñàkkum xëy mi ci ndaw ñi rawatina nag ñi nga xam ne dañoo jàng ba am seeni diplôme atelier boobee nag ba ñu ko door rek léegi jagleel ko ndaw ñi tollu na ci ñaar fukki at ak ñett ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu commerce yore itam kàddu gouvernement bi di Abdou Karim Fofana di xam ne ni nag atelier training bi mën naa may ndaw ñi nag ngir ñu gën a waajal seen bopp ci lépp lu jëm ci wàllum xëy mi Pape Modou Fall di directeur de l'emploi yokku ci ne nag xeex lu jëm ci ñàkk xëyum ndaw ñi jël te loolee nag dafay gën a wàññi jafe-jafe yi nga xam ne rek ndaw ñi ñu ngi koy jànkoonteel addu ci leneen mu soxal jongantee njiitu réew mi nag Ousmane Sonko génn na ci course bi yëglekaay bi di enquête moo xëy bind ko ci xëtam bu njëkk xam ne nag ni coowal Prodac bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne rek moo ko jural ñàkk bokkam ci élection présidentielle yi chambre pénale bu cour suprême démb la daal di dëggal nag daan bi nga xam ne gàlloon nañ ko ci ndoddam moom Ousmane Sonko maître Khoureychi Ba di kenn ci avocat Ousmane Sonko di xam ne ne nag ñii di camp adverse bi la ñu bëggoon am nañu ko nag te mooy nag Ousmane Sonko bañ a bokk ci élection présidentielle yi avocat général bi féetee cour suprême dañoo sàkk woon ci moom ngir mu daal di neenal nag boobee arrêté waaye nag mujjanteel gi daa dëggal nag daan bi nga xam ne moom la teg ci kaw Ousmane Sonko Walf Quotidien faylu ko ne Ousmane Sonko kay moom jamono ji nag bokkatul ci élection yi Mame Mbaye Niang mu am ndam ci kanamu Ousmane Sonko loolee la bi di l'Observateur daal xëy fësal rek moo di bu ex-Pastef loolee nag di dëggal ne mëneetu la bokk ci élection yi bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bu Ousmane Sonko aawut yëglekaay bii di Sud Quotidien xam le nag démb la ñu daal di dëggal peine bi nga xam ne moom la ñu daal di gàll ci kawam ginnaaw coow li doxoon ci digganteem ak Mame Mbaye Niang mu jëm ci mbirum Prodac première chambre pénale bu Cour suprême moo daal yàqate nag géntuk maire bu Ziguinchor ci bokkam ci élection présidentielle yi loolee waral nag yéenekaay bi xam le ni nag tane gi makkaani kay la ñu ko sexal ginnaaw benn at nag muy yëg ak a wàcc ci wàllu yoon ci digganteem ak Mame Mbaye Niang mu jëm nag ci procès diffamation cour suprême nag démb la daal di dëggal daan bi nga xam ne rek tegoon nañ ko ci kawam yëglekaay bi di la Témoin ne cour suprême kay moom dóor nañu àtte bi mu daal di daanu fast track nag la ñu ko daal di def ci traitement bi nga xam ne rek moo jëm ci mbirum diffamation doxoon ci diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang yéenekaay bi ne te li ci gën a doy waar nag mooy dafa yemoo ko bés bi ñuy ndar képp nag lu jëm ci saytu gi ñeel parrainage yi constitutionnel la laas yëglekaay ne mambay ñaakay galgal na galgal bu rëy kii di Ousmane Sonko yor yor bi maître Bamba Cissé di xamle ba tey ne nag Ousmane Sonko moom mën naa wëy di bokk ci course bi ndax nag décision bi nga xam ne rek moom la Cour suprême jël nag mënu koo xañ li nga xam ne moo di ay droits civiques am yër leen bi la yëglekaay destin en sursis loolee nag la yëglekaay bi di la Le Quotidien daal di xamle ne Diomaye Faye Mimi Touré Abdoul mbay ñoom ñëpp dañ leen a bloqué ngir ay doublon Anta Babacar Ngom moom nag jàll na ci daal di teg loxo ginnaaw ay faux parrainage yu mu présenté ca conseil constitutionnel yéenekaay bi di libération séq waxtaan ak Thierno mi nga xam ne rek dafa bëggoon a nekk candidat moom nag juróom fukki at ak ñett la am démb ab liste la présenté ca conseil constitutionnel mu am treize faux députés yoo xam ne kenn xamul leen ginnaaw bi ñu ko tegee loxo nag moom informaticien boobee nag di xamal waa dig ne noppi na ngir assumer lépp luy ay responsabilité ma Le Soleil yëglekaay tey jii nag daal di sëgg ci wàllu tàggat yaram ak gaynde yi rek ñu gis jamono jii mooy gagné nag lii di kaan bi ñaar fukki joueur ak ñaar nag démb amal nañu nag ay entraînement ñaar fukki ak juróom-benn ñoom ñëpp nag teew nañu démb ca stade Abdoulaye Wade bu jam ñaajo nag ci cinquième séance bu bi ñu doon amal ci réew mi sport Mendy nag moom mooy prince jamono jii ci Arabie Saoudite ginnaaw bi ñu ko nomee muy meilleur gardien ci mois de décembre bi suñu làmb daal di dellu siwaat nag ci Balla Gaye 2 mi nga xam ne jamono jii ma ngay rey boppam ci ay entraînement ca ngir nag bëgg am ndam ci combat bi nga xam ne rek moom lay waajal